aleykum wa rahmatullah taala wa barakatu man maa ngi tudd maanaam Seydina Ababacar Faye ñu naan ma Maroon Cha dama yoro daara fii nii ci watu filao yi waaw mais à chaque fois man su may génn daara ji di def entraînement xaaju guddi gi wala une heure du matin deux heures du matin kasare mais am nañ ci ñoo xam ne ni dañuy ressembler ay pneu maanaam chaque guddi sax am na benn pax boo xam ne ni fële la nekk yàgg naa ko fekkee dañ koy taal pour récupérer pneu yi ne maanaam tamit baaxul mais à chaque fois ñoom preuve bi daal maanaam la ñuy récupérer pour jéem koo jaayaat waaw kay mais yàgg naa leen wax sax ñu ne leen ne leen maanaam ci boppam ne leen maanaam ci boppam lii kenn waxu leen sax maanaam too koy taal mais soo leen koy taal dañ koy yóbbu ci benn milieu boo xam ne maanaam kooku ci boppam kenn du ko noyyi parce que tey jii nii lii ñu taal fii yëpp mu ngi dugg suñu maam yi ak suñu papa yi ñoom ñëpp ngi feebar tey jii xam nga waaye mais en tout mooy maanaam liitu yoon maanaam ma inter vidéo yaa am nay vidéo pneu yu bari la woon tout tànk yi mujj maa mujj récupéré pneu yi tout tànk yi dem yóbbu leen nel pneu yaa ngi ne gis nga leen nekkul pneu yi pneu yi kese waaw li daal maanaam ñu ngi def benn intervention boo xam ne daal ci gouvernement ma jaayante ko ma jaayante ko monsieur Amadou Kara Mbacké loolu moo ñu jàngal lii waaw mu ngi ne maanaam foofu fu ñu gis doomu aadama am lu koy lor wala muy lor askan wi su ko gisee loolu nañu ci taxaw eh, eh, da ngeen di xëy wër nag kële la wala en tout cas daal jërëjëf semaine benn daara laa nekk fële saa su may dem entraînement guddi ay 2 heures du matin 1 heure matin am na benn pax bu nekk fële encore foofu ñu yor pëne yëpp foofu lañ koy taal. yëpp fële am na benn pax bu nekk fële. ñu yore pëne yëpp foofu lañ koy taal. te loolu tamit du yoon quoi parce que loo fi taal si askan wi la jëm. te ñun fii dëkk loolu du yoon. waaw bii nag benn xaw ma kan ma fi xam kan ma xam kan ma ko fi tuur mais am na ku ko taal. que përëm bi lañ soxla. am na ñoom la am na ñu koy taal ci ñoom. waaw dañuy dem ba guddi. ba guddi suba. waaw ñu ñëw rek fayal fayal. dëgg la. ñoom ñoom ñoo fi tegaat fu ne yële tamit. waaw waaye ñu yóbbu ko fële mais pneu yëpp si la bokk. waaw pneu yëpp si la bokk. Ido ah. dañu koy taal xam nañ ne ñun dañ fi ñëw pour def ci liggéey effectivement bujumaan rek ñoo koy taal waaw bujumaan ñoo koy taal comme ñoom am na produit bu ñu fi soxla. xam nañ ne ñun dinañ ci bàyyi aussi xel. effectivement donc dañ nekk dans la zone. effectivement am na benn pax bu nekk fële boobu gis nga gis nga. bujumaan rek ñoo koy taal fële nga garab gi am na gan di pax soo demee. fii grand dañ fi sonn trop nag sonn nañ fi trop parce que loolu lañ fi gis ñun fi lañ dëkk booy ñoom ñëpp fi lañ juddoo ñii ñu ngi ci daara ji waaye boo xoolee lii rek du benn comme ko sama jëriñ ñu ngi ko waxee du benn yoon man woo naa police du benn du ñaar du ñett benn pneu la ñuy taal ñaari pneu pour mën a récupérer feer bi pour mën ko dem jaay te li ñu fi taal ci ay pneu ëpp na ay cinquante et quelques mi ngi nii sonal nit ñi kenn xamul lu ñuy def jaaxle nañ trop fii sonn nañ fi trop trop trop trop trop trop sax bu dul tàkk-tàkk bi sax mbalit beeg xar yi dee yeeg lu ne lañ fiy sànni lu ne lañ fiy sànni sonn nañ fi daal trop fan yi maire defar na ko mais ba léegi gisoo boo demee dañu ne mosuñu koo laal daal dund boobu daal la ñuy dund fii métti na trop daal métti na trop. ban appel léegi ngay def yow. li may def appel rek mooy autorité ñu jëm ñoo jàppale. ñu jéem ñoo jàppale fii bu dul dara ñu defal ko sax benn boo xam dañ fay sport wala ñu defal ñu ci dara loo xam dañ ci mën a jariñu kenn ku ne mën cee gis sa ni mu nekkee nii li ko fi sànni ñun duñ ko yëg parce que heure bu jaar te oto mënu fee jaar ngeen ko doo fi jaar charrette mënu fay jaar ngeen ko doo fi jaar dañ fay xeex nag ba sonn demante nañ ñoom ñoom fu ne mais ba léegi mënuñu ci dara loolu daal mooy suñu problème te kuñ ci jàppale nag moom ñu jël